ci mbir mi waaye nag moom lu tuuti tuuti rek na ànd ak njëriñ wax bi nun ñi koy wax ak ñi koy déglu wax bi lu mu tuuti tuuti rek na na nan ci bokk jëriñu lu mu gàtt gàtt rek ndax kii nga xam ne kii moom la ñuy waxtaane euh, di ko fàttaliku di fàttaliku ay jukkoom ak ay jëfam ak ay waxam ku ku ku ku jëriñ murit yi la njëriñ lu lu lu landee landee landee loo xam li ba fii nu toll nii mi ngi dox damay wax nag man ne waxtaan ci sëriñ bi euh, war nan koy def di ko fàttaliku di ko nafar ay jukkoom di wax ay ay ak ay ay jaar-jaaram ak i wax wax waaye nag <clears throat> damay bëgg nu nu nu jiital ci wax ji ak fàttaliku gi. nu xam ne jukkoom yooyu kat nuy fàttaliku di ko nafar di ko wax waxtu wu nekk ñu di ko dégg li muy jariñ ci nun mooy nu fas yéene roy jukko yooyu loolu lay wax bis bu set nan fas yéene roy ci ay jukkoom roy ci aw doxinam roy ci ay waxam ak i jëfam ndax loolu mooy liy tax nu ànd ak moom topp ci moom ba fu mu nekk ëllëg nu fekk fa radiyallaahu moom nag ku yomb wax ci moom la ndax lim def fu waay wëlbatiku gis ko lim wax it fu waay wëlbatiku dégg ko kon kuy wax ci moom lam lam waxoon ak lam jëfoon nga di ko waxaat ak ak ak ak di ko wonewaat nan wëlbatiku fas yéene <clears throat> lépp luñ ci dégg ci loo xam ne ni <clears throat> euh, lum daan def la wala lum daan wax la nu fas yéene xam ne roy ko mooy la nga xam ne ni moom moo nu ci moo nu ciy jëriñ ndax moom. sëñ Tuubaa la fa man teg ko fi kanamam di fas yéene wax uh, uh, uh, roy ay waxam ak ay jëfam kon nag nu itam bu ñëwee tegat foofee mu taxawoon teg sëñ Tuubaa ci kanamam di di fas yéene def lam digle di fas yéene bàyyi lam tere nu it bu ñëwee yoon woowee dong ci la ñu war a jaar di ko roy ci di def lam doon wax di def lam doon def di wax lam doon wax loolu nag day euh, léegi fi mu euh, euh, wax ji bari na jëf yi ki fi bari na rajo yeeg télévision yeeg porte ak yëpp bari na waaye li ci am njëriñ daal ci xam ci kifin mooy lan daan dégg ci moom nu def fas ko yéene jàpp jëfe ndax moom bi mu fi nekkee ba ni mu fi jóge yàlla nee na yonent bi nee na sëñ Tuubaa nee na loolu rek la daan wax loolu nag war nañ koo dégg te jàpp ko ndax kenn ku ci nekk ci ñooñu de ay waxam nun war nañ koo jàpp fas ko yéenee jëfe ndax lu mu ciy waxit ay ay ndigal la ak i tere rek yàlla nee na nan def nangam buñ def nangam yàlla sëñ yóttu bi salaa salaam leeral na ko nee na def nangam sëñ Tuubaa mi topp na ci yóttu bi salaa salaam nangam ak nangam boroom nag euh, moo bind bindeef yëpp fab yónent yàlla mu salaa jiital ko ci kanam bindeef yi ñëpp sëriñ Tuubaa ba mu ñëwee la yàlla defoon rek la def mooy jiitalaat yonti yàlla salaam sam ci ci kanamam muy muy euh, euh, njiitul mboole mbindeef yi moom it mu topp ko liggéeyal ko moom it sëñ Tuubaa Abdoulaye radiyallaahu anhu ba mu ñëwee moom itam dafa taf fab sëñ Tuubaa teg fi kanamam rek lu mu daan def mu dëkk moom la fas yéenee xam ba di ko def lu mu daawul def la xam fas yéenee xam ba du ko def kon nit bu ñëwee foofee mu tegoon sëñ Tuubaa rek lañ ko war a teg eh, eh, topp ci moom lam nu daan digal di ko def lam ñu tere nu bàyyi ko ndax eh, boo neen nañ roy sëñ Abdoulaye nañ roy sëñ Tuubaa ñu defee ne loolu da war a dañoo wax ne loolu mëneesu ko mais loolu wax waxi pexem seytaane dong la dañ koo war a roy ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu mi jiitu ci bind mi bu ñu ne laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah lañ cay teg. te suñu boom daf koo ne cëpp ci kanam bindeef yi melal ko ni nga xam ne jullit xaqan noonu la war a mel muul bi di ko ne kon mur yéen itam jullit ñëpp nag roy leen ci yonent yàlla moom salaa salaam noo ngi roy yonent yàlla sax ndax julli gi ñuy julleeg koor geeg asaka jeeg mboolem li ñuy def ci lislaam ci yonent yàlla moom salaa salaam lan ko royee kon mën nañ koo roy kon bu sëñ Tuubaa ñëwee di xaadima rasul fekk li nga xam ne lii moo lëntoon mboole ñi ko ñi ko toppoon ñi toppoon yoon bi te xamuñu ko mu leeral ko def ko ba nga xam ne képp mënees na koo xam nu topp ci moom di ko roy sëñ ab Lahad bu mu ñëwee loola rek la yeesalaat kon nu itam war na noo taxaw fa mu taxawoon fas ko yéenee roy ndax euh, sëriñ bi dama ne moom ci ak nite rek lay dox ci ak nite rek lay dox nit ki blad rali allah dafa daan wax ne dafa am xisa bu am solo bu mu daan wax bo xane bi dafa des ko wara xam ndax da daan wax ne sun borom di dafa bind yatt bind yar fab yar jox kenn fab len jox kenn fab len jox kenn sun borom dafa bind malaika bind nit bind bayima ñëw fi bind xel ak banex bolé xel ak banex jox nit mo nek ci digg bi yar yëpp la am mu dil si jël xel képp jox malaika mo nek ci jor mu del si jël bànneex képp jox bàyyi ma moo ne ci nit ki ni ko suñu borom bindee ak ak melo yim nu mel ak ak ak dara ji yim jox doomu aadama ndax mboolem ginnaaw bu jëmm yàlla ji jàllee nit a ci topp ndax yonent yàlla mu salaasam dara ji bi maam malaayika amu ko jinne amu ko keneen amu ko ku nit kon nit moo moo moo moo la toppal ci moo topp ci yàlla kon nag euh, nit ki dafa war a xam nag. Euh, loolu ko suñu borom defal ba wëlbatiku nag euh, euh, jox ko ay ndigal jox ko ay tere mu mu wëlbatiku nag bu toppee xelam la wax ne na bu toppee xelam taxaw taxawaay malayka fa suñu borom ne bul jàpp ne malayka li malayka man nit mu ne bul ko déggee noonu ni nga koy dégg mooy malayka ñoom suñu borom dafa wax ci alxuraan ne ñoom laay soon laa maamoon way faloon maa yoo ma doon lañ leen digal dañ koy def lañ leen teer duñ ca laal dara yow saa yoo xam ne jëwul nga ndigali suñu borom topp liñ la digal bàyyi liñ la tere te xam nga taxawaay boobu suñu borom laay soxlaa maama wala yëfaloo na maa yomaroon na def liñ digal bàyyi liñ tere su ko deful nag xanaa mel ne yëfal yi nga xam amuñu ndigal ci soxla ndigal ndigalu suñu amuñu soxla ci ndigalu suñu borom ay tereem ñoom dañuy daal taxaw taxawaay bàyyi ma fa suñu borom ndax moom ñoo naan ulaayka kal anaami ballu mu alallu ñoom ñooy ñooy gën a réer sax bàyyi ma yi ulaayikumul xaafiloon kon nit ki sun borom daf ko bind melal ko gën jaar rafeti mom mooy la xad xalaq naa fi ahsani taqwim suma radadnaahu asfal saafiliina man na dem ci jaamu yàlla ba kawe malaika man na yées ci mooy yàlla ba suufe bayima kon nak top sa xel taxaw taxaway malaika bobu nañ xamné nit ki da fay wara top ndigali su borom yi bàyyi teram yi sëñ bi dafa wax ne ku top ndigali su borom yi day li nga bëgg ci aduna ak àllaaxira di nga ko am waaw fatlikou Cheikh abdallah moy fatlikou ay waxam ak ay ay ndinkanem lii may wax ndénkaane si Cheikh Abdou Lahad la moo daan dénk ne nit ki dafa war a am topp ndigal suñu borom bàyyi tere yi loolu mooy tax nit ki mën a xam boppam nit ki su fekkente ne deful liñ ko digal bàyyi wuñ ko te kooku bàyyi ma la lim daan digle mooy mooy mooy loolu dan taf def ndigal yi bàyyi tere yi loolu mooy li lii tax nit ki nit ki euh, mu xam boppam mooy kan ndax su ko deful rek. jukkoy bàyyi ma ndax bàyyi ma yi ëppoo ni bokk mbokk moo am am nañ ko dañoo am dañ leen toggul jëf nag ñoom amuñum xel moo tax nag ñu doon ñu doon ay bàyyi ma waaye nit ki nga xam ne am na xel am na bànneex nag na topp bànneex topp xelam taxaw taxawaay malayka fa suñu borom na bàyyi bànneexam ba ba ba euh, sori lépp lu ñuy tere wala wala wala lu ñu dul def loolu la daan digle moom waaw ah nun nag. loolee mu doon digle ak lam doon wax loola képp la ñuy jàpp ne moom lan war a def bu dee lu ñuy def bu dee lu ñuy tere ñu xam ne moom lan war a bàyyi ndax lu ci nekk aw yoon la waxee ne dañ caa a tege kon nag euh, moom Cheikh Abdou euh, li nga xam ne lii def na ko fi li may wax sànq ne ku wëlbatiku foo wëlbatiku da nga gis lu defoon ku déglu da nga dégg waxoon bépp wax boo gisate mu jub boo xam ne ñi ngi koy wax danañ ne sëñ Blaat nee na woon nangam mooy lii may wax kon euh, nun ñi nga xam ne noo topp ci moom lin nan topp ci moom ci di def lam doon def di bax wax lam doon wax loolu mooy moo nuy jariñ ca topp gi ñuy topp ci moom waaye ku topp ku topp ci nit euh, mi ngi mel ne nga ànd ak nit euh, di julli mu mu mu mu rukkoo yow nga siggi loolu moom du du roy dinañ topp ci moom ci roy ko ci jëm lam daan def ak wax lam wax lam daan wax